mbaa yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax a baax. ji tey fii ci. kontaan ci lool parce que làmb ji am na ay poids te xale yi ñu ngi bëre lii ñu doon xaar ci ñoom ndax ñoo waxoon ne ñu ubbi làmb ji kon nag suñu organiser seen sagu ñoo tax ñu organiser pour ñu mun a compétir amateurs yi aussi maa ngi leen di remercier di leen gërëm bu baax baax parce que gis ngeen manifestation bi am na ambiance woykat yi Ndeye Fatou Adama Diarry gis ngeen ambiance bu mu def Maodo gis ngeen ko lu muy def. kon ma kontaan rek. yaa ngi dégg ndënd yi du ñuy wax. bu mel kontaan nga. oui kontaan naa kontaan naa maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax. di remercier aussi mes parrains. di remercier le ministre des sports Makhtar Ba ci jàpp bu mu jàpp ci manifestation bi. di remercier euh, euh, maître Bassirou euh, Assane Dioma boo xam ne dafa taxaw ci manifestation bi mu mel ni xol sedd na daal parce que amateur làmb yi ñëpp kontaan nañ ci làmb ji ni mu mel vraiment ay ci film ci fim la waa xam nga soo organisé amateur yëpp kontaan mbëri ñëw bëre triché wuñu loolu mbégte la kon maa ngi leen di félicité bu baax a baax. ana champion bu mel ni Ablaye Ndiaye sax. bul bul fàtte euh, Biram Mbaru boo xam ne aussi moom dañ koy tuddee drapeau les poids yi. maa ngi ko gërëm avec sa délégation merci beaucoup. sànq maa ngi gis sa doom di la sànni xeer Ablaye Ndiaye seen diggante la. waaw Ablaye waaw noonu la toujours seen baay la toujours fu may fekk rek day fooy ak man kontaan ci lool parce que booy yëpp suma doom lañu suma set lañu noom dañ leen di jox di leen éduquer loolu moo tax ma indiwaat cosaan am yére yu ma leen jox vainqueurs yi vaincu yi am pour ñu xalaat ne dañu war a dellu si cosaan cosaan bi dañ ko war a indiwaat. jërëjëf jërëjëf.